di leen ko yow la Cheikh Ahmad Lamine yow la di leen ko yow la Cheikh Ahmad Lamine yow la di leen ko yow la Cheikh Ahmad Lamine yow la di leen ko yow la Cheikh Ahmad Lamine yow la Yàlla la xool ni yow la yoneen bi xool ni yow la Cheikh Saad bu xool ni yow la A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim Bismillahir rahmaanir rahiim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ah lu déggee kàddu yooyu nag xam ne jàmbaaru islaam moo woote bu ngeen déggee kàddu yooyu xam ne surtout rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yooyu xam ne le lion du Cap-Vert moo woote kookan la Cheikh Mouhamad Lamine doomu Cheikh Chaybata doomu Cheikh Mouhamad Fadal Wuldu Mamin ba mu jotee ndigal ci cheikh Aya Aydara doomu cheikh Saali Buya doomu cheikh na cheikh Saad bu mi xalif général des xaat jot ndigal ci way juróom turandoowam di cheikh Mouhamad Lamine doomu cheikh Mouhamad Fadou bu dumaam mi ah cheikh Mouhamad Lamine jot tamit ndigal ci nijaayam ci kër yaayam muy gan cheikh Mouhamad Hassan Aydara jot ndigal tamit ci mbooleem turu diine yi rawatina waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou Cheikh Mouhamed Lamine guddi gii daal moo ngi ciy rendre hommage way juróom wa Cheikh Cheybata ibnu Cheikh Mouhamed Fada Wudu Mamin ak kan Cheikh Mouhamed Mal Aynin doomu Mamin Cheikh Mouhamed Lamine moo ngi ciy woo le président de la République du Sénégal ak kan madame Marième Faye Sall première dame bu Sénégal ak kan le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ak kan le ministre maire de Yoff monsieur Abdoulaye Diouf Sarr le directeur général du PSE monsieur Ibrahima Wade di taalibe xaqan ak kan tous les membres du gouvernement bu Sénégal Cheikh Mouhamed Lamine ne moo ngeen di woo ci guddi googu di 72 yi ñu organisé fii ci biir yoo Cheikh Mouhamed Lamine ne ñetti fan yi nii laa koy séparé seddale bi vendredi 15 février 2019 bis la boo xam ne bisu ñaan la ñaanal réew mi jàmm ñaanal réew mi sutura élection yi ñu jëm yàlla def ci jàmm def ci naataange sàmmal ñu réew mi aaral ñu ko samedi février bu ñu yeewoo 9 heures jàpp 12 heures si jàng ay kaamil alquran bi nga xam ne moom la maamam de Cheikh Nasser Saad ne woon dahru dahariri kitaabuhul jadid laa yuxtasha taxrifuhu wala yahid kon nag Cheikh Mouhamad Lamine ne nanu bareel jàngum alquran ma ñaanalaat ci réew mi doole ñaanal réew mi jàmm doole ñaanal réew mi kaaraange doole ñaanal réew mi sutura doole ñaanal réew mi naataange 14h ñu taxawal julli ga ah 14h jàpp 15h ñu daal di indi bernde ya 17h jàpp 19h ziyaara des autorités étatiques et coutumières. ci la ñu dalal nag gan yi nga xamante ni mooy yi gouvernement bi yabal ak ñi nga xamante ni mooy kilifa aada yi. vingt heures jàpp vingt deux heures te la ñuy def xéewal yi mise en place bi si lay am zéro heure jàpp une heure et trente du matin ci la cérémonie officielle bi nag di tàmbali une heure et demie jàpp deux heures et demie communication bi nag ci la ñuy développé thème bu am solo bi nga xam ne mooy islam et engagement patriotique ñu war ko waxtaanee foofu ca guddi ga deux heures et demie jàpp six heures du matin animation religieuse bi nag si lay daal tàmbali waykatu rasulullah àndandoo ak firikat ya ñu waxtaane maamam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam 6 heures jàpp 6 heures 20 ñu jox nag kàddu gi Cheikh Mouhamed ay dara borom Abraar taalal ko loxo yi nag mu waxtaan ak umma islamique bi fàttali nit ñi seen diine fàttali leen li nga xamante ne mooy seen i wareef fàttali leen li leen yàlla tere daal di nag ñaanal mbooloo mi ñu daal di yeewee dem noppaliku ji ba dimanche bu ñu xëyee 17 février dimanche boobu 18h jàpp 19h ci la xadara bi nag di am bu ñu si noppee 20h jàpp 22h xayru diin yi ci lay tàmbali 22h jàpp 23h. ah si dañuy joxaat nag kàddu gi ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamed Lamine ah daal di agsi nag si cappaandawu nag li nga xamante ni mooy clôture du débat waxtaan ak nit ñi ñaanal leen yàlla daal leen di ñaanal nag ñu delluwaat si jàmm fépp waaye mën a jóge ci biir réew mi ak ci bitim réew bu ko defee nag ñu daal di taral nag loxo ya mu daal di ñuy jàngalaat li nga xamante ni mooy suñu diine daal di ñuy ñaanalaat yàlla ba nga xamante ni dinañ ci mën a demaat ci jàmm yóbbaale message boo xam ne dinañ ci mën a tënk jariñu si ba déwén nag jàmm bu ko defee fépp waaye mën a jóge mu ñaanal la itam yàlla delloo wàll ci jàmm ba nga àggaat sa biir njaboot ci jàmm ba déwén nag jàmm ñëpp tasewaat sa si jàmm Cheikh Mouhamad Lamine daal ne bis bii képp ku si ñëw yàlla yàlla faj sa aajo ci barke maamam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim